sedd ak mbégte ci daje feeg yéen ci pas-pas ndax ku ci na fa mu jóge ba ñëw ba fii wóor na ne pas-pas a ko tax a jóg ndax jegente leen loolu yàlla dogal kër gii daa am seen soxna suñ daan wax ulimatu njaay mhm. ci njaarim mu am doomam ju góor ñuy wax Jibril Fall mhm. mu takki bagaasam jóge Jurbel bàyyim njàngam ñëw fekk si ma dama dama bëgg ànd ak yow ci liggéey bi ba mu yor lu ma joxee man di ngàbb sab saat mhm. prof anglais laa nag waaye fu suma yéene nekk ci classe bi jàngale dama bëgg di ànd ak yow ñuy ànd maag xale boobu ak mu jot ma ñëw Jurbel dafa leen fa benn conférence moom mbàkk si laaj ñë fa dëkk yàlla jël ko yàlla na ko yàlla yërëm waaye ba muy ne ca daara ja xale bu jigéen bii dina ci waañ bi tollut ni kii ñu gàddoo ko fa yëg na ko mu fekk si fa nijaayam jooju moo tax taawam bu góor bi toll nii moom la ko tudde mooy suñu diggante kër gi kat loolu dong la man ay def loolu képp la te amuñu fi nag ci àdduna lu raw loolu bàllu ko bépp amuñu ko maa ngi mel ni sax sama conférence ren bi njëkk di def bu soob yàlla ci koor bi sopp la tudd ndax lan sopp nag kenn amut lu ko lu ko féete kaw dañoo am genn góor gu ñuy wax alaaj jumaa si mën nga ca Sénégal dafa wax benn bayit boo xam ne dagge boobu mooy ahlul mahabbati ahlullaahi nee na ñu soppante rek nañ yëg ne ñoo ñooy waa kër yàlla loolu rek lay teg yàlla na nu yàlla boole sopp en su fekkoon léegi am lu ñuy def loo xam ne su ma ko defee ngeen yëg ni sopp naa leen moo xam damay ma ci tàngal wala nangam <laughs> noonu laa koy defee rek ndax araab mooy wax ne sant ak mbégte daa waroon a doon am mbubb ku kontaan dugg ca toog arab ñoo koy wax ñu ne cant ak mbégte ne cant ak mbégte daa waroon a am loo xam ne mbubb lay doon ku kontaan rek sol ko toog hmm. Hmm. Euh, seen mbokk mi door alaaji jokkoo nañ lu yàgg door a gisante man fàttali ko sax fu ñu gisante fu ñu njëkk a gisante waaye daal jokkoo nañ lu yàgg door a gisante yàlla def ñu aji màkk daje fu ma dem rek mu xam ndax fi ñaari tànk yi jànge ñaari doom Idriss ak Baye Mbaye mhm. kenn ki bëggoon na fi ñëw tey waaye dafa xëy ne la ko doon indi moo am gàllankoor waaye mhm. xëy na yoon bi am ci benn mhm. Idriss nee na programme moo ko mayul mu poussé pour ñëw te daa toll ci examen ak yooyu waaye daal cofeel lañ leen dencal ëmbal leen ko ni ngeen ko ëmbale waaw suñ Moustapha cofeel bu ngeen am rek bu toll noonu la waaye yàlla nag moom comme xas sopp sa affaire baax danaa naar mhm. yàlla boole sopp rek moom daal bu ñuy sopp rek suñu affaire di baax ndax moom bu soppee nit day wax jibril ne ko sopp naa diw de mhm. Mhm. naa mun naa ca sopp ko jibril ko sopp naa ko mu ne ko léegi waxal sa kaat malaaka yi ñu sopp ko ñu sopp ko mu ne kon nag délégation yi jóg fii yëpp sopp wax leen ñu sopp malaaka yëpp sopp mooy nag léegi wutal leen ma ndox ngeen defal ma ko ca ndox mu nit ñay naan ndax ku ko naan rek sopp nu la yàlla def yàlla na nu boole sopp vraiment kontaan nañu lu ñu am ci ñaan gu baax da ngeen ko ñaanal daara ji nag ñu nga ci liggéey ba ndax yàllaa nu nattoo li ñuy def nii dañ daan def émission ca rajo bu ñu wax rajo bu jaar am fa association ca la Alioune daan juddoo ñuy daf ñu daf ñu ko jóg ba fi ni am nañ juróom benn daara yoo xam ne ñu ngi fonctionné li si gën a mag mooy daal ci bu peut-être ay deux cent trois cent xale ña nga fa mu ñëwee Europe ñaare léeg-léeg mu ñëw fii di ñibbi am sama tuuti weccet su ma demee na ren boulangerie lay def mhm. su ma dellusee ba ne ren fast food laay def su ma débusee benn yoon nga ren nangam laay def ndax ab sëriñ ca suñ réew ma bu dee sëriñ kese kese ku ñëw jaar ci kawam da nekk sëriñ plus <laughs> am déet sëriñ ko sulëf waaw su ko defee da mën a def nii def nii def nii càkk càkkal ñu ànd dem looloo tax yooyu muy def yëngut yooyu yëpp macha allah waaye daal ña nga cay góorgóorlu di leen ci gërëm ak sant ndax itam li ñuy ubbee suñu seen bi Ali TV li ci sëñ Doora di liggéey ngeen di ko ci liggéey lépp yëg nañ ko lépp yëg nañ ko fi nekk na ñun ñu ngi mel ni ku yor ab télévision te ab site dong lañ yor lu dëgg ab site rek lañ yor moom na fa jàll fexe na ba jokk Doora fexe ba jokk yéen fexe ba nii mu def France hmm. def na ko itali def na ko Espagne ma nga ci yoonoo pour def ko Allemagne ndax lan ndax ñëpp fekk si ko ca liggéey ba muy jàpp mhm. ñu ànd jàpp ci mhm. macha allah yàlla ko yàlla gën a jàppale vraiment ma nga ciy góorgóorlu ma nga ciy liggéey liggéey rëy mhm. yoo xam ne ñun sox dañ ko ci yërëm dañ ko ci yërëm ndax fi ne balaa tëdd dafay def situation ba pare tey diw tey jox na ma nangam diw jox na ma nangam diw jox na ma jënd naa ci ñaari si ndox jox ko technicien yi noonu la koy topp ba laajte dañ ma message ma ko loolu nag liggéey la boo am solo. teraa ngi ngeen defal doora yi ni mu ci bëggee lan ci bëggee. ni mu ci bëggee lan ci bëggee. waa Brescia fële ca Italie. seen conférence ren le 18. moom mii lañ ko euh, xaw pare parrainé bi. moom lañ ko parrainé moom mii. xam naa maa ngi ko wax dégg naa ko la nga wax bu subaa ñu ànd bu ni ma samedi laa am bii <laughs> moom bi lañ ko parrainé te loolu nag du la tuuti. kon nag guddi gàtt daal maa ngi leen di yëgal sama mbégte. leen ñaanal samay ñaan. di sàkkum salaam. sàpp ngeen ñaal ma man tam seeni ñaar mën naa bëgg ngeen ñaal ma ma nekk sëriñ bu ko defee ma ñaanal leen ñaanuk sëriñ ndax ñaanuk ustaas moom bu dee ci sunum réew bokkut ak ñaanuk sëriñ kon nag dégg may ñaanal ma nekkub sëriñ ma ñaanal leen ñaanuk sëriñ yàlla ñu am jàmm yàlla ñu boole jàmm nekk na ci réew yombut. da lay tekki waaw loolu lay tekk yàlla na ngeen ci am li ngeen di wut am ci ngërëmul yàlla am ci jàmm gum nangu la lëgal ci seen bopp lëgal ci seen jaboot yàlla man na ko sañ na ko yàlla ko def man daal bég naa lool kontaan naa lool yàlla ma yàlla yóbbu jàmm ñu ñu leen waar yow ma insha allah insha bu ñu jógetee gën a jege gën a yaatal gën a mu ngi doon daal. Mm. ci seen loxo ci loxo lool. Mm. incha allah. Mm. asalaamaaleykum sax ma jox gaa yi. kon lii am na solo lool. yal na yàlla fay leen. wax na dëgg nag ndax. nit su ma nee am am luy def ci làngam ah, nga loolu ci moom am am yokk ci gasoil <laughs> léeg-léeg bu dee trente mille wala vingt mille station bu muñ da ko jot ne chauffeur bi à droite à droite mën na ko diw nee nga defal ko ci gasoil waaw diw nee ko ci gasoil soo ne maa nag am dina cell ma def nii ñu dugal sama poche su ma demee lu ma lu ma ko mën a def ma defe ko kon nag yàlla na yàlla fay leen amiin amiin amiin def ko seen téere jëf amiin amiin amiin kontaan nañ ci lool yàlla xam na ko kontaan ci yéen lu jiitu loolu lay ñëw rëy na ñun lool it ndax jëfin léeg-léeg dafay yokk jëf te itam nii am na solo yëkk ci ne lii noonu la ko jox muy suñu addiya kii nangu addiya te yàlla nangul seen addiya waaw solo ci ñun lool yàlla xam na ko jërë ngeen jëf alhamdulilah mu yomb yor fi njaboot yombut waaye lu yàlla yombal mu yomb euh, loolu soxna loolu suñ door di wax sànq bi yombut mooy nekk fekk sa soxna waaye su ngeen xasee am yenn communication yi rek daanaka dañ koy jéggi jàll kuubul yan jafe-jafe su boobaa du ngeen ci bopp rek la mooy su fekkee dañoo ànd ci diini di waxtaan euh, daje bi ñuy daje day tax ma yokkoo ci dooro dara mu yokkoo ci man dara xam gi may xam situation damay yokk ak muñ xam gi muy xam sama situation da ko yokk ak muñ loolu tax daje am solo trop mm-hmm. du dëgg association itam loolu ndax suñ mi ngi ko junj léegi ci soxnaam sii loolu mhm. lu am solo la loolu lu koo xam ne yaa ngi xeeñtu diina mu di ko xeeñtu su ngeen bokkee di xeeñtu communication commencé na am te mhm. diggante ñaari way dencante saa bu communication amee rek mhm. yi diisoon yëpp ñu ngi tàmbalee jafe ñu ngi tàmbalee woyof lu am solo kon nag yàlla moom yàlla na ci daal mooma lañ bi di topp si ay tànkam moo nu wax ne dama dañoo bëggoon bu doon dangay yendu ci kër gi benn bi ñu xool la sax xoole la suñu nijaay nga dellu mooy suñu tànk yi yéen ku mu ñaanal ah yéen nag ñoom naar ak pëlim jiw ak soxna ndoy mi nga xam ne noonu féete ak mag liggéey bi ñuy liggéey moo ngi ñaan ngeen ñaanal lu ci niñ leen di ñaanale xam ne am na addis boo xam ne tey su ma leen ko firilee mën naa am da ngeen ko dégg ci ci jataay bi yonent bi daa wax ne dafa am jenn waay ju mos a sol aw dàllam ñu ne ko foo jëm mu ne diw seeti waaw jenn waay ju sol aw dàllam ñu ne ko foo jëm mu ne diw seeti yonent bi naan dox dox ba sori mel na malaaka yor jëmmi nit ñëw ne ko waaw diw mi ngay seeti lu ngeen bokk mu ne ko dara lum la defal mu ne ko gisanteegul ah nga sol sol daal di ko seeti mu ne ko waaw léegi kon seeti bi luy illa lu ko waral mu ne dama ko bëgg rek sunu borom ne ne malaaka mi nee ko bëgg gi mu bëgg waa ji tax na bëgg naa ko man mooy seen tànk yi njëmm si toog ci seen kanam ñàkk solo lool bari nelaw lool bëgg ceeb lool lu ne mu jaral leen ngeen bàyyi seen liggéey yi ak fii ni mel distance yeeg te léegi kenn ñëw ñu barab sàngam la jóge nga ne ah loola yàlla na yàlla jël nag cofeelam googa mu soppoon waaja ndax la waaja sopp waaja yàlla yàlla defal yéen itam sopp ngeen sopp waa ji yàlla dugal ci ak sopp sopp leen ñu leen doo ilimaan jay jàng saaroo may tafsir waaw moom nag mu defe ne dara laa ci waaw di ko commenté ba man fi yow man fi ma toog dégg nga jóge fa ne suba la ñuy dem màkka mhm. ñu ñu gonte fa daw ci guddi gi fajaru agsi fajar gi ñu julli si jumaa saar bu doon tafsir ilimaan di ko jàng mu ne ma <laughs> dafa dañu fekkante Médine ñu jóge Médine ma ma jóge Médine altine dem màkk moom mu war fa jóge mardi fekk ñu màkk mu ngi toll ci tafsir suuratul xujuraat oustaz egsi na màkk ci quatre heures du matin quatre heures trente-deux ñuy julli imam bi tari suratul xujuraat da koy teeru loolu du asar ah loolu jarul xam <laughs> ah te boobu jamono Sénégal ñi ngi koy jàpp ci internet bi ku jóg wax oustaz Alioune Sall lii oustaz Alioune mel ni ko amul cër ci diine bi yow nga jóge Médine ñëw fajar màkk ilimaan bi si li nga toll ci tafsir di di di ko di di ko tafsir ilimaan bi jàng ko waaw ah, kooku su amul cër ci ko ah, ko teg suñu mbégte daal mooy loolu dëkk nekkoon dañu sol suñu dàll hmm. dañ ko ñoom xam ngeen ni dëkk mel hmm. bi daal mooy sunu tànk bu njëkk ñu ñëw ci dëkk bi fanaan fi ñaari fan ak ñett daa fi jaar nag mm-hmm. waaye booba dañ yoroon passeport ordinaire mm-hmm. te bëgg dem Italie mm-hmm. bu ñu ñëwee wàcc ci aéroport comme li ngeen dox ma mos naa faa wàcc mos naa wàcc beneen bu ñuy tuddee Charles de Gaulle su ma wàccee ku ñu wax jaañ ma may jël si rek dugal ma train wala bu fekkee train bu dem léegi ma fanaan këram su ma xëyee daal jàll waaye نبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان يا طالبا سبل النجاة وراغبا حفظ القرآن بلهفة وتفاني إني أسوق موضحا لك خطة تبدو كمثل قلائد العقيان تقرأ بها القرآن سهلا لينا تنجو به من آفة النسيان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 ñu nekk dara njàng ñu ne ñëpp lañ doon def ñëw ci li ko yitteel moom lu doom noo ko ci yitteel waaye nag loolu dafa rëy ci moom ndax nun ñi loolu rëy na ci noonu soo fee moom seen mu soxla sëñ ndooy na la kaa ñu dem xam naa foofu ngeen ànd ba mu lijjanti ko danga ko joxaat dox yitte bi mu ñun suñu yitte yàlla ci biir ciy jariñoo mooy boo ne allahu akbar ba bàgg naan asalaamualeykum dafa am benn benn benn benn audience boo am ak sa boroom di ko diis nag say soxla xam ne da nga moom audience boo ko soxlawutoon du wut audience dafa la supérieur am loo yaakaar tax nga wut audience am soo ne allahu akbar léegi accordé na la audience bi ubbil nañ la bunt yi protocole bi recevoir na la léegi na yaa ci des julli boo ne alhamdulilahi alamin mooy yàlla maa ngi lay sant ci audience bi nga ma may alhamdulilahi alhamdulilahi loolu lay alamin yaa moom mbindeef yëpp waaye mayoo audience ñëpp yàlla mayul audience ñëpp yow na nga bokk ci ñi may audience ba nga julli tamit nii arrahmaan rahim mooy dangaa bëri yërmande rek te bëggal ma jàmm moo tax nga may ma audience Malick yow mi diin mooy bis pénc ci yaa ko moom kon su la neexoon bañ a may audience kenn dafa ñu ko yoonoo laa bëgg nga teg ma ci loolu mooy ihdina siraatal mustaqiim yoon wan siraatal ladiina yoonu gaa yu baax yi nga xam ne lépp lu ñu xam ci lu baax ña nga ci ne ko nag xayril maxdubi alayhim ñi nga xam ne buñ xamee lu baax duñ ko jéem bugguma ànd ak ñoom ñi nga xam ne am xam lu baax taxul ñu def lu baax bugguma ànd ak ñoom tàqale ñoom wala doolin ñu buggut a xam ñoom it tàqale ma ak ñoom ki la dégg day wax ne amiin yàlla sa ñaan ngeen nangu ndax ñu duggaale ci loolu nag nga dugal sa soxla nag yéen yéen xaay nga dégg si bi ngay julli ba baa ngay sëlmal yaa ngi naan sunu borom dama bëgg ci sama dund gi li ci rafetul nga sensiréel ma ko li rafet nga accordeel ma ko wala nga valideel ma ko moo tax boo jullee ba noppi naan ko subhanallah pour bañ audience bi gaaw a jeex parce que audience audience ak sa borom dafa neex moo tax koo gis mu sëlmal rek jóg dem xamul li xew danaan subhanallah 33 alhamdulilah 33 allahu akbar 33 jàng ixlaas jàng falaki jàng naasi jàng ayatul kursi lépp rek pour bañ audience bi gaaw a jeex loolu lañ doon def nii léegi waaw moo tax nit ki su su déggee julli li muy tekki moom ci boppam ay cëram day sawar ci julli yàlla su ko déggul nag da ngay waaru dama laa mere daanaa la déglu waaye dootuma la déglu ba léegi nag ñàkk déglu ko lu muy wàññi sëñ Mbàkke déglu ko lu mu ko doon jëriñ yow kay lay yàlla nañu fi yàgg a daje. amiin amiin amiin. Eh, sunu borom bi nu defal tawfiq ak xéwal rek. amiin maa ñëw dënnu yu féex. amiin amiin amiin. nelaw. yàlla buñ bañ kenn. ah. xam nga man réew ma dañ naan ma waaye bu dee daam tijaan question boobu booy na sama noppi. may leen bàyyi ma foofu rek mag mu woote rek ñu seen ma ci biir woote ba su man mag wootee ñu seen ma ci biir woote ma su mag ñëpp wootee ëllëg xanaa boo mag mi séddee mag mi sédd ma ku yeex ma ëppale la am de li ci des nag réew ba ñooy bëgg te pal la benn étiquette pour boole la fenn yàlla na yàlla boole nangul. amiin amiin amiin vraiment lool. amiin ngeen ñaanal May mii moom lañ ñëw ci këram. Mhm. ak borom këram mustafa Ndong. Mhm. wax naa ne sama taal la. ndax sama jarbaatu taalibe la. ñu mhm. naa ko sànq xëy na am na ñu fekkut mooy nijaayam ñox Jibril Fall moo déparé woon ci Diourbel fekk ma Dakar. mu yor xóojog téléphone mu yor bu bees. may recevoir géej jenn nit mu dindi pisam def ci sama bos jël sama pis def ci bosam ñu toog daal suñu jàmbur man téléphone daa sane ma jël muy bosam ma jox ko ne ko sa wot sa mbaam mu ne ma ne sa bos la fii. oustaz est ñun mën nañ dab Jibril Fall. waaw mën ngeen nii nii la nii la woon defal. yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla yërëm. waaw nag moo nu waa kër gi. soxna si ay maamam gàddu ko indi ca daara ji. gàddu gone yëpp indi lu ma ci jaay lu dëgg léegi nag moom mu yëg ne maa ngi Italie mu ne ma eh, ndax doo ñëw yendu fa ma ne ko ah kay mooy su tànk yàlla na yàlla fay ba mu ñëw ba léegi nag xam naa naa ñibbi mu ndax mu noppalu gis ngeen li gis fii même su ngeen fi nekk nun la koy defee moom jëkkëram ji dañuy andi teg rek xam na te man su may ndékki su ma jëlee benn affaire jóg ñu waaw lu xew ma ne suur am nii laay ndékki waaye ndékki bu fi ndaw ko ndaay ñëwoon sàllaaw dañ ko fiyee dañ ko Aïcha Ndao wuyu soxna Aïcha Ndao wuyu ñëw na boobu ba daal man li ma xam mooy nopp la wut yàlla ko yàlla fay jàppale ko vraiment kontaan nañu waaw ah, léegi nag mu ngi noonu whatsapp yaa ngi mbooloo maa ngi waa France mu noonu nu ngeen defoon ci nii rek na yokk nu ngeen defoon ci nii na yokk am na ñoo xam ne tey lañ ma sa gisee déggante rek am na ñoo xam ne tey lañ ma sa gisee léegi nag na fa tàmbalee rek macha allah góor jàpp ci góor góor jàpp ci góor ba ca góor gu mujj ga li ma góor jàpp ci góor góor jàpp ci góor ba ca góor gu mujj ga ab sëriñ ak du muus ab sëriñ du muus ab istaafam ñooy muus waaye sëriñ moom du muus genn ñaan rek nag laa am mooy yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara يا طالبا سبل النجاة وراغبا حفظ القرآن بلهفة وتفاني إني أسوق موضحا لك خطة تبدو كمثل قلائد العقيان تقرأ بها القرآن سهلا لينا تنجو به من آفة النسيان أخلص لربك والحمد لله الذي أغناني وأعزني بتقوى تلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان